ak euh, li nga xam ni moo di mondial bi am foofee ca Doha Qatar ginnaaw nag euh, ba nga xam ne équipe bi di équipe nationale bu Sénégal jot na qualifié li nga xam ni moo di huitième euh, de finale mu war a daal di jongante équipe bi di Angleterre ginnaaw nag ba Angleterre daal di daanee pays de Galles nag ki nga xam ne moo di coach bu Angleterre jot na daal di def ab interview ci biir interview bi nag mi ngi wax ni rek nag am nañu équipe te Sénégal équipe bu dangereuse dangereuse nee na gis na leen ñu joué contre Iran foofee ca Vienne te nag dinañ gën a li nga xam ne moo di match yi nga xam ne Sénégal ko waaye ñoom li leen ñor rek moom moom na ñoom lañ jox favori te bi ko war a téye ba mu jeex moom nag yokku na si xam na ñenn ci ay joueurs yoo xamante ni euh, ñu ngi ci équipe Sénégal bi te dañuy daal di yëngu foofee ca euh, championnat bu Angleterre li des nag mooy ñu jot gën étudier match yi nga xam ni Lions yu Sénégal amal nañ ko waaye nag ñoom euh, coach Angleterre bi lu mu wax ginnaaw ginnaaw nag ba mu daanee pays de Galles ci ab conférence am nee na ñoom daal dinañ dem ba jeex te duñu may dara gayndey Sénégal njaay tey nag équipe bi nga xam ne moo di Ghana doon na jogantek Uruguay ginnaaw nag ba li nga xam ne ah, daan na équipe yi di Ghana ci ñaari bal ci zéro ba naroon rek qualifié waaye naka noonu nag Korodal daal di door équipe bii di Portugal nag mu daal di xañ li nga xam ni moo di équipe bi di Uruguay qualification am li ni mel nag mu am tey waaye ba tey ci cadre mondial Sénégal nag li nga dina ko teg ay daan jot na ko sanctionné ci lu tolloog ay millions ginnaaw rek ba ki nga xam ne moo di coach bu Sénégal dañ ko topp ci attente indisciplinaire ndax moom bu ñu amaloon dafa waroon daal di dem daal di présenté wu kenn ci joueur équipe nationale waaye moom mee di Aliou Cissé dafa daal di dem ci bile conférence de moom kase ba tax nag FIFA daal di koy topp daal koy jox sanction fi mu nii nag fédération bu sénégalaise nag jot na leen amande ci lu tolloog ci lu ëpp juróomi million euh, Bad Buzz nag di ab euh, animatrice bu siiw la jëkkëram daal di bett rek moom nag nag jëkkëram daf ko daal di bett muy njaaloog ak benn oustaz bu siiw animateur bi la nag jotuñoo xam turam ndaxte nag euh, ginnaaw ba jëkkër yi xamale ni rek da koo wàcc ngir rek da koo bett muy njaaloog ab oustaz bu siiw moom mais nag di jëkkër ji jotul daal di dévoiler turu animateur bi waaye animatrice bi waaye jotul tamit daal di dévoiler turu ki nga xam ni nag moo di waaju di oustaz oustaz bu mu doon njaaloo la coowal nag sëriñ ki nga xam ne moo di jantal Mara day delluwaat kaso moom nag ginnaaw nag ab histoire de escroquerie maanaam nag dafa daal doon liggéeyal ay nit leen daal di nax ñoom nag ñu topp ko ba fi mu toll temme nag yoon daal dina ko teg ay daan waaye ba tey nag ci langum politique dañuy daal di jëlee ki xam ne ba defaree uh, na ci réseaux sociaux rek ne dina amal li nga xam ne moo di grève la faim moom nag bile grève nag tey la ko waaja daal di tàmbali euh, fan lay jëm ak kañ lay arrêté nag loolu xamuñu ko waaye bis buñ ko xamee rek dinañ leen indil xibaar yi euh, fii seen chaîne YouTube SENactu TV waaye bu ñu jugee ci loolu nag euh, li nga xam ne nag dañuy delluwaat foofee ca coupe du monde ndax équipe bi di Allemagne bokkoon ci favori yi ak équipe bii di Belgique toog nañ nag ndiki démb li ne mel nag jur na wax fépp si réseaux sociaux yi rawatina nag amateur foot yi yi nga xam ne ñoom lañ jàppale favori yi ci mondial bi bu ci mel ni Angleterre daal dina sax génn te eggagul huitième de finale ñoom nag ci euh, phase de poule lañ daal di toogee muy Allemagne muy Belgique lii nag moo xew si coupe du monde waaye nag euh, violence bi nga xam ni am na biir ensemble doxoon ci diggante euh, député bu pur bi dama bokkoon ak coalition coalition ak yeewi askan wi ak député bi di Amy Ndiaye boo ko ànd ak kooke di président Macky bu ñu amoon moom mee di député bu góor bi di député bu pire bi jotoon na koo dóor biir assemblée mais bañ ko toppee moom di ndaw si dafa nekkoon en état ba tax na nag niki tey ñu bëri jot nañoo génn rek di ci wax ñi ci mel ni nag ay autorité ci dëkk bi jot nañoo def ay pub ci seen réseaux sociaux yi ba tax Bougane Gueye tamit jot na def pub ci page officielle am bu Facebook di xam ne ni nag li xew assemblée démb rafetul quelque que soit nag ak lu mënti am jigéen def la ko waroo jël sa loxo di ko daal di teg jigéen rawatina nag nga nekk assemblée nationale di ay nit rawatina nag ngeen nekk foo xamante ne da ngeen di xeexal li ni mel ngay daal di toog publiquement di néewal jigéen doole li ni mel nag moom mee di buggaan ngay dani rafetlu wu ko waaye nag li xew ci réewub Sénégal doy na waar ndax sax léegi mariage yi nag dafa daal di jéggi dayoo li ni mel nag Grand Yoff la xewee ndiki démb du lenn nag lu dul ab euh, sëy bu ñu doon takk doon euh, ab mariage bu ñu doon célébré foofee ca Grand Yoff waaye mu mujjee neexul dara